basuma basuma mbare vidéo bu ndaw bu gàtt bu pressi pour wax leen yéen jeunesse bi pour lan Sonko ne woon leen yéen jeunesse bi candidature am si yéen la dépendre parrainage si yéen la dépendre mu jiite réew mi si yéen la dépendre léegi nag yéen ñëpp toog di xaar Ousmane Sonko pour mu jot parrainage am lañ leen di wax parce que Ayib dafe dem na DG ni ñu leen ko waxee woon candee la bañ na di dugg kon ça veut dire ak lu tribunal de Ziguinchor mën a jël yëpp ñoom li ma leen waxoon rek état de droit foog ñu teg ko à côté nekk ci dëgg sa dëgg sa li Cheikh Tidiane si waxoon bu yàq jotee lu waay yàq na ko xeet bu yàq jotee lu waay yàq na ko xeeb tey DGE euh, seen yoon nekku si jël nañ seen responsabilité ne Sonko kenn du recevoir ndax kenn du recevoir man Ayib Daffé bi mu koy wax dama yaakaaroon ne affaire de propagande la mais effectivement am na ñu ma ko seedeel sur place nanguñu mu dugg fa euh, dugg amul droit dugg fa parce que ordre bi ci kaw la jóge ci kaw la jóge si Sidiki Kaba ndax buñ ne ordre bi ministère de l'intérieur la jóge kon c'est Sidiki Kaba point final on avance sur ça léegi Sonko nag amul droit jot fiche de parrainage si yéen la dépendre ndax avocat yi def nañ seen liggéey ba pare ginnaaw avocat yi def nañ seen liggéey ba pare waa ji ayib dafe dem na fële bañ gars yi waxaat de bëgg bëre bañ bëre di ngeen wàcc xeex ñu ngi toog nanguwuñu pare ne kenn noo bëgguñu pare ne kenn one est d'accord sur ça mais au moins yéen ñi tey seen carte d'identité di xaar pour signature xanaa doo fees kasoy yi Sonko mu ngi grève de la faim ñëpp ñu ngi laat lan moo tax muy grève de la faim mu ngi nii joxuñu ko fiche de parrainage am Donc Sonko, il a le droit d'aller en grève de la fin ou il n'a pas ce droit il le droit combat bi ñu leen di wax neex naqari dañ fay dem barki sëñ Bamba dañ fay dem combat bi dañ fay dem ndax état dëgg sa dëgg sa lañ toll gat sa gat sa ko wees nañu ñii dee daañu dee ñii dund dund ay major kaa ñi nag dañuy toog yéen la ñuy intimider li ñuy wax yëpp dañuy fenn on passe je ne m'attarde pas Père Cheikh na je ne m'attarde pas objectif bi xam ngeen lan la le maire de Ziguinchor doit être libre yéen jeunes Ziguinchor yi combat bi par force bëgg ñun ñu ko imposer Ziguinchor yéen Dakar problème bi yëpp il faut qu'on se comprenne ñëpp a ngi naan xeex xeex xeex Dakar mais gis naa ne gars yi ñu ngi ñuy bëgg moom de ndax xam ngeen lan moo tax ñu bëgg ñu moom Ousmane Sonko lañ ñu téye comme otage tey ba waxati leen Ousmane Sonko. Il est l'otage du système. Il est l'otage. Actuellement, il est retenu comme otage. Motak def grève de la faim. Ousmane Sonko n'est plus un prisonnier politique, mais il e séquestré. Kon maman est otage là. Motak Macky Sall tegal len gatsa gatsa fu mu yem neex. Ousmane Sonko otage la mooy. ñi nangu woon yéen boo leen manifester li waroon génn yëpp tegu sur la table ñun ñëpp duñu génn si force de l'ordre parce que xam nañu fu peuple bi toll yéen peuple bi yéen ci des. di ñu ragaloo nag tëj nañ Ousmane Sonko hôpital principal dafa jege pale la gendarmerie moo fay gere hôpital principal mais ci biir militaires yi ñooy faj. na ku nekk jël say responsabilité DG yéen peuple bi prenez vos responsabilités moo tax bii pas force vive de la nation yëpp lay lancer appel ax yéen ñii di wut parenage mënu leen am parrainage yéen opposants yi au lieu de négatif il est temps ngeen def bloc xamoon ngeen ne bu ñu jàppee Ousmane Sonko yaakaaroon ngeen ne lii yëpp day jàll daaw jeej bi ngeen di tout sauf ñëw di ko jege ku nekk di martaatam pour ku nekk amoon base de données la non yéen ñëpp am ngeen seen base de données yaakaaroon ne seen base de données yéen a ko moom déedéet c' est Sonko qui contrôle encore c' est va toujours contrôler et c' est moom kese la moom rek ou kenn du ko fi élection yi kenn du fi amee parrain kenn du fi motal parrain personne kooku moom je le jure foog ngeen wàcc dem DG jëli ji jëli ji pression nag bu ñu leen ne foog ngeen wàcc pression daa am nu ñu koy tegee waa Ziguinchor bii passé teg nañu pression te taaluñu fenn teg nañu pression te ñu fenn léegi si yéen la des jooy yi moo fi war jeex ñun suñu âge Ousmane Sonko mu ngi grève de la faim bu ñuy live dañuy dëgër këñ mais bu ñuy wax ak maire yi xam nañ ne grève de la faim bi c'est c'est donner le flanc ñu bëggal la rey nga ne leen maa ngi nii jébbal naa leen sam bopp da yomb ren di nag ku dee ci xiif lu ñu la jiiñ yow la mais bu ñuy live si combat lañu nekk waxtu jooy moo fi jeex mais man sama aqulaay la grève de la faim bi ay doomaraam yi jaruñu ko moom mooy ñàkk doole kattan gu mu ñuy jiite kattan gu muy defee campagne am loolu yëpp da ngeen koy sóor grève de la faim bi bu ñu manifester bu ñu taale bu ñu naree taal moom mooy ñàkk naka lay ñàkkee hôpital lañ koy fekk su boobaa du mën xeex te moment bi xeex bi c'est universel xeex bi saa devient national et international foog dem jëli ji fiche de bi Ousmane Sonko foog libérer Ousmane Sonko de force ou de bëgg xeex bañ xeex toog xaar xeex jóg daw xeex tëdd nelaw xeex foog ñu xeex bu ñu xeexul état commencé na jaay doole comme Casamance ñoo jël décision bi décision amul droit jóge Casamance ca Ndella yéen commissaire arrondissement yow yaa fi rayoon ay nit yéen ay criminels yi en 2011 yéen a ñëwaat tey bëgg rayaat sénégalais yi. gars yi eh maa leen ni ko wax di waxaat xeex bi da ngeen yaakaaroon ne jeex na ma ñàkk sama ndaay bu ñu xeexul ñii jaay ñu doole Sonko du nekk candidat d'abord waa Pastef képp ku Sonko yónni DG DG dootu la recevoir donc soyons prêts. pour ce combat là neex naqari da ngeen koy def drone yi ma leen waxoon ngeen di xaan-xaan ni drone yi mooy def combat bi moment bi parce que dootul combat mbooloo no ay Daffé moom rendez-vous bi DG rek la leen ko mun jox déjà dàq nañ ko tey kon suba la leen di joxaat rendez-vous tey DG jël nañ ay responsabilités ah non wóoraguma sax xaara xaara parce que dañ ne woon du fa dugg dañ ne woon daal du fa dugg tey moom du dugg DG peut-être suba xëy na nag bu fa yeggee itam gars yi ils vont lui notifier ça mais man note boobu nekkul waa DG ñoo koy appliquer parce que ça vient di ministère de l' intérieur te ministère de l' intérieur bu fa jugee l' administration est continue et non discontinue kon ñi la ñooy yàggali mais sous la houlette de Sidiki Kaba bëgg xeex bañ xeex soyez soyez prêts soyez prêts cocktail molotov drone portable yi yàqu yi essence huile moteur yi dem leen ci garage yi mécanicien yëpp defaral ma ay bidon ay bidon huile moteur essence moo gën gaaw cocktail molotov huile moteur essence huile moteur essence huile moteur essance ci bidon léegi ñu wan Macky Sall ni li mu bëgg dinañ ko ci fekk si après nag armée gendarmerie hôpital principal lu leen neex def bu fekkee dañ yaakaar ne bu ñuy menacé Ousmane Sonko ñu ñëpp dañuy toog noppi wala bu ñu rayee Ousmane Sonko ñoom seen day sedd da ngay ni duul deux minutes laa la wax ni Ousmane Sonko blessé na wala hôpital principal am na éruption gendarmerie balaa deux minutes ñu door nday Macky Sall balu bopp kooku moom je vous le promets bakkanu Ousmane Sonko ak bakkanu Macky Sall benn nay dem te Sonko waxoon na leen ko comme bu Sonko di wax nag Sonko li yëpp da leen ci jiitu woon bu buñ leen naan affaire bi xeex moo koy faj ngeen foog ni Sonko dafa bëgg xeex bëggul xeex bu ñu waxee ñu foog ne waa Casamance moo tax mu ngoog tey décision bu jógee Casamance kenn ko appliqué léegi nag c'est au peuple de se décider ñu ñooy fal Sonko wala Sonko day joxe daratam pour ñu fal keneen c'est à nous ku nekk na nga jël sa décision jël sa responsabilité bopp à ton intérieur def sa autocritique bopp xool loo mun a jàppalee Ousmane Sonko nga teg ko sur la table ñu xeex merci beaucoup.